salaamaaleykum euh, mbokk internet yi ñi nga xam ne yéen a saxoo di seetaan seen euh, chaîne CIK TV euh, tey ñu ngi waat nii tey fii nii nga xam ne mooy si kër Cheikh Ibrahima Keita le Ninki Nanka l'héritier du trône de Soundiata Keita borom jinne yi di la roi d'Afrique tey ñu dalal Cheikh bi Cheikh bi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo askan bi. waaw alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. gannaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Soundiata Keita. ñu ngi nuyu 15 millions d' habitants yi nekk ci Sénégal yépp mm-hmm. góor jigéen mag ndaw mm-hmm. di ñaanal njiitu réew mi ak njabootam ak euh, kilifa diine kilifa aada yépp yàlla leen yàlla jàmmal yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ci barke Soundiata Keita. macha allah ah, cheikh bi tey euh, dañu ñëwoon bëggoon waxtaan ak yow si li nga xam ni que mooy wàllum nguur gi mm-hmm. parce que bu ñu xoolee. fan yi ki nga xam ni que mooy xalifa Sall gis nañ ni que génn na ci nguur gi tey lan nga war a mën a conseiller wala nga digal ko li nga xam ni que mooy nguur gi wala moom mooma di xalifa Sall. waaw alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla di kontaan alhamdulilah di féliciter geste bi président de la république def wax dëgg yàlla geste bu noble la kontaan nañ bu baax a baax rafetlu nañ geste bu mu def bu baax ndax euh, euh, wax dëgg yàlla wane na ni euh, Sénégal benn la Euh, gannaaw yàlla mi nga xamante ne moo ñu bind te bu doon yoon waruñoo def erreur dañ ko waroon jaamu comme ni mu ko bëggee mais dañ koy tooñ mu ñuy jéggal ah di def loo xamante ni neexu ko mu ñuy jéggal suñuy bàkkaar. Mm-hmm. kon moom bu ñëwee def loolu tey jii. Mm-hmm. ah ñu ngi rafet rafetlu loolu di félicité mm-hmm. geste bi mu def. di ko ñaanal moom njiitu réew bi jàmm. di ñaanal Khalifa Sall jàmm. di leen wax yàlla yàlla jàmmal Sénégal. yàlla leen yàlla jàmmal ci barke suñu jotaay. macha allah ah, cheikh Euh, jamono yii nii passé j'espère que ñu ngi doon dégg li nga xam ne que mooy wàllum dragon te am na lu nga xam ne jotoon nga ko waxtaanee fii si CIK TV euh, askan bi jotoon si rafetlu loolu ci waxtaan yi ak kàddu yi nga xam ne jox nga leen ko ak conseil ak li nga leen xamal te nga xam ne xamuñu ko mais tey am na ñun jot nañ jot am suñuy éléments yu jotoon dem defi ji reportage foofu noonu mais ba ñu demee mbir mi yéeme na trop am na ñi nga xam ne nee nañ enregistré nañ voix bi mais mënuñu ko am am na ñi nga xam ne dem nañ ba foofu ñu ngi dégg bruit bi li ñuy dégg. mënuñu la wax lii la doon mais yow ak tey li nga xam ni que tey yàlla may na la ko li nga xam ni que tey sa maam Soundiata Keita am na li nga xam ne baaxee na la ko muy ci wàllum dragon ak ci wàllum jinne tey ñu buggoon xam li nga xam ne que nit ñi ñu ngi koy dégg te di ko enregistré te mënuñu jot bois bi loolu noonu lan nga si mën a xelal askan bi wala ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu noonu ci géejawaay te fan yi nelawuñu ndeysaan ñu ngi noonu seen xel dalul ba dégg naa sax mag bi nga xam ne moom mu ngi fa ndeysaan yaram bi dafa dem ba bañ tey lan nga leen mën a wax li nga xam ne encore conseil ak li war a gën a mën a dalalaat seen xel mooy li ma ninki ndànka bi français naan dragon du mala du jinne buy xeex ba ne aadama wax naa ko waxaat naa ko nañu dalal seen xel te ñu dem seeti boroom xam-xam yi ndax loo gis dafa am ñi ko mëne bu dee mbiru jinne la nañ ñëw xool boroom jinne yi ñi fi faj ay jinne bari na ñi naan ñoom ñoo yor ay jinne fii bari na nañ xool ñi mën te xam wàllu jinne mhm. ñu jël leen jébbal leen mbir moomu ñu taxaw. macha allah bu ñu ko deful rek dañuy def erreur. Mhm. waaw gannaaw waxoon naa ci. Mhm. loolu rek laa am lu ma ciy wax. ah ñi koy jéem ak ñi ko mën bokkul te Cheikh Ibrahima Keita ku ko xam xam ko ci mu xool la rek nga wér. Mm. ku ko xam xam ko ci faj bu gaaw ku ko xam xam ko ci borom jinne yi ah, ku bëgg a jokkoo at moom da ngay def 77 664 92 92 Cheikh bi dafa. bëri si jamono ji ay famille yi nga xam ne juboowuñu famille yi nga xam ne que déggoowuñu te boo xoolee ñoo bokk benn deret tey lan nga mën a wax ci loolu noonu si li nga xam ne mooy nekk ci biir famille di jaxase famille yi. waaw yàlla dane saytaane insi wal jinni yàlla wax sayaatil insi wal jinni xamante ne ni jinne la mooy saytaane bi jubloo woon maam Adama mhm. ah lekkuloo boppam bi am seytaane boo xamante ne ni mbindeef la doomu aadama la da nga laal bu am solo. da nga laal bu am solo. macha allah boo seetee nag jamono ji ci ñaari seytaane bu nit bu nit ñi. moo gën a sonal doomu aadama yi. macha allah lay nit. nañuy muslu ci suñu bopp. macha allah duggal seytaane ci suñuy biir. saytaane te xam ni saytaane mun ci suñu biir. mu suñu biir loolu moom lu lu weer la. est-ce que yaay comprendre. macha allah tey muslu. Mhm. moo tax euh, doomu adama bu ne dafa war a doxee xelam. Mhm. tey xam ni seytaane mun ci suñuy biir. Mhm. waaw yàlla nag li mu wax mooy lenn. Euh, doomu aadama. mënul euh, mucc ci seytaane en tant que mënul boppam. nit boo mënee sa bopp rek. mucc ci seytaane li ñuy wax daal mooy yàlla ñu yàlla musal ci seytaane waaw te bàyyi ñoo ko si ñi sax amin allahumma amin bon <laughs> j'espère que euh, xam ku ko bëgg a dégg ak ku ko gis fii si CIK TV nga ko mën a amee CIK TV fi ngay dégge waxtaan bu leer nañ ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima kayta di ñu ko jàngal chaque jour ah macha allah man mii de am na li nga xam ne maa ngi koy jot a jàng depuis ba ma nekkee ak sëñ bi ba léegi ah, te dama koy sante yàlla bu baax tey Cheikh bi ah, des fois nit dinañ ko déddale at euh, ki nga xam ni que mooy waajuram wala ñu déddale ko at ki nga xam ni que mooy ki mu gën a bëgg ci àddunam tey loolu lan nga ñu si mën a baaxee ak lan nga mën a baaxee téléspectateurs yi lay seetaan. waaye wax nga lu am solo nag gis

déddale yooyu bàyyiwul ndey ak doomam déddale yooyu bàyyiwul jëkkër ak jabar mhm. déddale yooyu bàyyiwul ay xarit ay doomu ndey mhm. déddale yooyu bàyyiwul sëriñ ak taalibe est-ce que déddale bàyyiwul patron ak surgaam koy taa macha allah xeetu déedéet yooyu. la ci mën a muccale rek mooy nga am protection blindée. Mhm. bi may wax boo ko defee sa yaram. amul lu maanaam bu 15 millions d'habitants yëpp jógoon. Mhm. pour jéem ci yow dara. daful antu kon protection nekk na loo xamante ne mhm. képp kuy doomu aadama dafa war a nekk sa yaram. Mhm. mooy li may wax doomu aadama yi rek. nous sommes des africains. nañu fier ci suñu bopp. te xam ni. déedéet lu am na gis nga. Euh, am na benn soxna boo xamante ne ni. Mhm. Euh, ndeysaan suma ancien patient la. Mhm. Mm, euh, benn wujjam moo mosoon ñëw këram. Mhm. Euh, wujjam bi nag ba mu ñëwee këram indil ko. cuuraay. cuuraay boobu mu ko indiloon nag. mu jël cuuraay bi di ko suuroo. ah foog ni comme que maanaam wujjam la rek indil na ko. <laughs> waaw mais gis nga cuuraay boobu. Ah. indil na ko séparation ak borom këram ba nga xamante ne ni. gis jëkkëram ak gis butitam la yemale. kay te moo ne ci cuuraay lañ ko def comme comme cuuraay yi la rek. Hmm? loolu dem ba indil ko feebaru xel. ndeysaan ci sama kër man Cheikh Ibrahima Keita la wëree. kon li ñuy wax rek mooy yàlla nañu yàlla musal ci séparation. Hmm. yàlla nañu yàlla musal ci dëddale. Hmm. ndax ça existe dans notre société. te lu am la mbir bu am la ça existe. lu ñàkk fayda lañ koy defaree ah. ay kaani poobar la ñuy jël. boole ko ay mbir. dem ci àll bi taal ko. yaa ngi may dégg. waaw. Euh, yenn yi sax dañ koy jël dugal ko ci duus. Mhm. maanaam bokk na ci mbir yu gën a gaaw. Mhm. ci wàllu liggéey. Mhm. muy séparation. kon point bi nga laal dafa am solo. te ñun sénégalais yi moom la ñuy dund. am na ñoo xamante ne ni dañ leen di dëddale ci seen place. ay bureaucrates yoo xamante ne ni maanaam ay soutien famille lañ woon. amuñu lu mooy seen famille seen famille lu mooy ñoom. dañ leen di dëddale seen liggéey. yàq seen àddina. yaa ngi may dégg de. macha allah am na ñoo xamante ne ni bu ñu xëyee dem seen bureau yi. biig sax buñ ko laalee dañuy feebar am na ñoo xamante ne pour ñu jóg seen kaw la dem liggéey yi mm-hmm. seen yaram day diis mm-hmm. dañ koy waaj waajaat mm-hmm. kon moo lay wan ni yooyu ça existe dans notre société du ñu def lu mooy muslu ci dem seeti ñaankat yi te xam ni ñaan boo bëggee avancé da nga koy def da nga koy jiital ca kanam

carrière dang koy defar du pour tay waaw xeetu dédélé dafa nekk loo xamante ni mën nañ cee développé fii ba suba parce que loolu mooy existe dans notre société okay. uh, comme ni ko cheikh bi waxee nous sommes des africains et eh, on oh, est né africain mm -hmm. kon donc africain la ñuy doon ba keroog ñuy dee uh, ah, kon li nga xam ne moo war askan bi mooy ñu dem xolaat sen bop xol li nga xamni ke moy ñi nga xamni moy borom xam xam yi te cheikh ibrahima kayta c'est le ninki nanka l'héritier du trône de sunjata kayta de sunjata kayta euh, borom jinne yi ñu gën ko xamé ci faj mu wër faj xol la tay rek nga wër ku ko bëgg jokon mom da ngay def 77 664 92 92 cheikh bi ñu bayal nga baxé askani ce dernier mot waaw delu di sante yalla rek di julli ci yenen di gërëm suñu maam suñu jafa kayta tay xamal jaamu yalla yi

ñooñu tarixa boobu wala njiitu tarixa bi loolu la doon jëfee. Mhm. kon duñ def rek lu mooy kontaan. Mhm. di ñaanal Macky di féliciter Macky. Mhm. di ñaanal Khalifa Sall yàlla ko yàlla teg ci yoon bu baax. yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin may ko kattan bu mu delloo ci liggéeyam. amiin ñu ngi ñaanal 15 millions d'habitants yi nekk ci Sénégal yi. jàmm ak salaam. ci barke Soundiata Keita. ok kontaan nañ ah. lool ok mbokk yi nga xam ne yéen doon euh, seetaan seen euh, chaîne CIK TV euh, tey ñu ngi woon nii dégg ngeen cheikh bi li nga xam ne waxtaanee na ko tey muy waxtaan bu am solo te j'espère que dinañu njëriñ ñun ñëpp kon da leen di jox dig daje incha allah ba beneen numéro.